la rédaction ñi am mbégte di dellu siwaat tey jii di dalal kii di Amath Suzanne Camara fii ci Sunugal 24 Amath nag di ko xam ne gëj nañ ko gis ci média yi ñu ngi lay nuyu Amath. waaw Moustapha man tamit maa ngi lay fay bu baax. Mhm. di nuyu aussi képp ku ñuy seetaan. lan ngay wax ñi gëj a gis Amath Suzanne Camara kenn gisatu la fenn léegi. Euh, waaw c'est vrai que am na instant boo xam ne toog naa lu yàgg ma mhm. waaw animé wu ma conférence de presse wala ñu invité ma ma ma dem Euh, c'est vrai que am na leneen lu ko waral mais aussi jàpp naa ne euh, tout le temps rek ngay nekk ci média bi aussi baaxul. c'est vrai que ñu lay tudd wàññiwul dara mais tout le temps yow ngay feeñ di wax aussi du tout le temps rek nga ko war a def parce que di nga dem ba di wax loo xam ne. mais leneen lan moo nekk ci ci ci mbir mi lan leneen lan nga bëgg <laughs> non non mais stratégie la rek aussi communication aussi dafa am stratégie te xam nga tey man même su ma tëbee sax di wax comme nii nga invité ma waruma tëb rek nga invité ma rek ma ñëw sa kanam. war naa gëstu war naa weccoo xalaat ci question yoo xam ne peut-être éventuellement. mais mais yow Amath Suzanne Camara yaa topp ci Youssou Touré réseau des enseignants de l'APR kon yow ñëpp xam nañ ne am nga loo am nga fu sa xam-xam toll kon kooku jarul nga ñëw affaire gëstu ak yooyu danga nga mer moo tax. no <laughs> non non mer ma kan laay mer rek. non mer ma man du ma mer kenn. parce que bi gis nañ bi seddaat lay commencé que surtout bi Macky Sall ñëwaatee ba léegi amaat kenn ba léegi daal jotagul wàllam. <laughs> waaw no c'est, bon c'est vrai que président am na fu ma mës yabal. Mhm. ma nekk fa c'est vrai que yàgguma fa bon xëy na peut-être euh, yàlla moo ko tudd yàlla moo ko jeexaloon et puis seytaane xëy na aussi euh, jaar fa wala xalima jaar fa lu ne mën na fa jaar. selon yow seytaane la wala xalima ban moo fa jaar selon yow. <laughs> non dama jàpp ne rek sama wërsëg moo fa jeex. mais tey euh, boobu ba léegi nag c'est vrai que nekkuma fenn mais taxul ma mere ci président Macky Sall. waaw ndax man mooy sama leader moom laa gëm te moom laay jàppale. mais loolu moo waral tekk tekkaaral bi aussi. non non du loolu et puis sax euh, xam nga tey gis naa am ñoo xam ne ñu ngi woon feneen wala ànduñu woon ak moom bi muy jël pouvoir mu jox leen ay ndombo tànk mais man jàpp naa ne tey ñu mu mujj jox ndombo ndombo tànk ku mel ne Moussa Sy ak le maire Patte d'Oie mais ñooñu aussi dañ ko jàppale ci 2019 bi kon war na leen war na bu fekkee moom sentir na ko gis ne mhm. war na leen am lu mu leen dénk aussi man. gisuma ci benn problème waa mais nag am na ñoo xam ne quand ñu ngi fi woon ànd ak ñun ci xeex bi te ba léegi aussi ñu ngi ci ñoom it tey bu ñu amee ay compétence am mérite aussi président Macky Sall war na leen mën a gestu te xam naa ne aussi xelam mu ngi ci mu ngi loolu. est-ce que est-ce metti boo gisee tey ji ku mel ni Moussa comme ni nga ko waxee léegi mu am ñeneen ñoo xam ne tamit fal nañ leen ñu def leen ay PCA yéen ñi nga xamante ni tey ba muy door ngeen àndoon ak moom tey ji ngeen toog ci gi di seetaan kenn falu leen loolu lay def. waaw non man comme ni ma ko waxee léegi rek honnêtement du ma metti waaw parce que aussi politique loolu taxul may def politique c'est vrai euh, dama jàpp ne ki may jàppale moom su gisee ne moom fii man mën naa ko fa amal njëriñ donc ci la mu fay xalaat yóbbu ma fa mais poste ñu bëri dañ ko jàppee ne rek ay privilège la ay jouissance la non man pour man sas la. mais ku jàpp nit ku jàppale nit bu muy yéeg tamit yoon la nag mu witt jox la. waaw loolu dëgg la mais xam nga mënul jox aussi ñëpp. waaw mais ñi ko jege mu witti jox leen au moins. waaw mais ñi mu jege am na ñu mu dénk. est-ce que yow amul taxawaay boo taxaw boo xam ne yaa looloo waral Macky Sall séddaatu la parce que fañ la njëkkoon ko léegi est-ce que amul noo fa mel ba waral séddaatuñ la. waaw loolu aussi mën na nekk man xëy na fa ma njëkk a yóbbu aussi euh, am na lu ma fa wane euh, euh, loo xam ne xëy na tax na mu mu mu ne mu xëy na kii ah balaa ma koy joxaat dina dinaa dinaa ko seetaat. kon sa bopp ngay mere. Euh, bu fekkee loolu na sama bopp laay mere mais man ba ma jógee foofu wax maam moom waxtaan leen te defe naa moom xam na man xam naa te donc du ñàkk fayda laa fa wane wala du reewande wala du xamadi ak yooyu parce que man. fan la la Macky Sall njëkkoon teg bi muy doog a falu. Euh, assemblée la ma yóbboon. Mhm. ma nekk conseil spécial du président de l' assemblée nationale. Mhm. sunu sunu kilifa euh, su Moustapha ndax man. Euh, sama kilifa la ndax sama xaritu papa la woon. Mm. mais xëy na moom loolu xamu ko wala fàtte na ko mais man ku ko jox cër la après ay ñagas ñagas jox seen diggante ba nga ba nga jóge fa ay ñagas ñagas jox seen diggante. waa ñagas ñagas moom am na. Mm-hmm. mais man dama jàpp ne rek erreur d'interprétation la. teyit man boobu aussi xëy na aw ma yenn expérience yi mais bu doon tey erreur yi euh, yenn euh, yenn erreur yi bu amee sax même su fekkee ne man defuma ko sax mais man dinaa xam nu ma koy moytoo. Mm-hmm. waaw di nga xam noo koy moytoo kon yaa ngi yaa ngi rëccu jaar jaar ba fa doon am mën nañ am ne mën nañu wax ne regret am na ci kon. waaw si sama wàllu bopp su ma sañoon loolu du am. Mhm. ndax xam nga man tey euh, fu ma président yabal rek man dama war a dama war a am attitude bu président am. maanaam moom li muy incarné man ma incarné ko. donc kon man dama war a mel na moom nekk royukaay. waaw donc mais xam nga euh, nit ñi aussi ni ñu lay jàppee. mën nañ la jàppee ne ah yow mii de xëy na président daf la fi indi pour lu fa xew nga wax ko ko te alors que demeewul noonu man président bi mu may wax pour war naa jege ji Moustapha Niass euh, le président Moustapha Niass vraiment daf ma ko wax rek si njëkk ak teraanga amul beneen condition wala leneen lu mu ci teg. Mhm. lu dul que man bu ma fa demee it dama fa war a war a war a wane mat ak ak loo xam ne aussi euh, taxaw aussi pour jàppale. Euh, mais est-ce que est-ce que tamit amaat façon façon façon bi nga naan defee façon bi nga naan defee façon yi nga naan defee sorte ay sorte yu virulente doon koo xam ne chaque fois mu ngi ci front bi di dóor ay coups yoo xam ne parfois sax ñi di jàpp ne coups yoo xam ne du ay coups régulier est-ce que du loolu tamit moo tax parfois ñu mel ni dañ la écarté ci parti bi. waaw loolu tamit euh, souvent dañ ma koy wax ne ma euh, tant que yaa ngi peut-être di jóg di xeex. di di di di saaga. saaga sax dañ koy wax saaga mais man uh-huh. daanu ma saaga. Uh-huh. mais loolu lañ ko tuddee saaga xaste ak ñu tant yaa ngi koy def kenn du la jox dara. Uh-huh. loolu moom dañ ma ko daa wax tout le temps mais man dama doon wax ne euh, kenn du la dénk ay responsabilité parce que dañ la dañ lay ragal ndax xam nga rek ak yooyu mais man dama doon wax ne man sunu kër. wala ku ma xam ci mbedd bi lu dul tele ak rajo man du ma saaga du ma xaste du ma xeex même suñu kër c'est la même chose j'ai habité dans une maison familiale sama kër papa sama papa amoon na euh, euh, ay jabar yu bari sama maam fi ma yaroo amoon na ay jabar yu bari mais mësuñu ma fa àtte donc pourquoi kon man ñu may ñu may ñu may gisalee mais c'est parce que man dama ne sama engagement ak sama détermination ak sama ni ma bëggee président Macky Sall moo waral lool parce que dama koy yëg sama yaram. man ma gis nit ku taxaw saaga président Macky Sall non man pour man boo saaga président dama la war a saaga. kon jamono boo ko xasee dama a xas. mais jamono ji kon mooy dundee activiste yi activiste yi fu ne moo tax euh, tout euh, souvent dañ ma koy wax ne ma yow am na loo da nga dafa am lu lu lu bëri lu manqué parce que tey man bi ma daan jóg di xeex di ñafe ak président Macky Sall daanoo woon gis ay activistes parce que dama leen daan teg seen place te dañ daan ragal te te ma wax la ko ay journalistes dañ ma daan wax ne ma bu ñu demaan ñoom ay euh, point de presse su PDS parce que temps yooyu PDS moo nekkoon euh, ci opposition bi bu dëgg boobu ay Sonko ak ak activisme yi mu créé donc euh, jógaguñ waa PDS bu ñu defaan conférence de presse ba pare. dégg naa dañ daan wax ne euh, saaga ma quoi ne Amath Suzanne ngeen ñu baal ma ci terme doomu raam ji moom moo njëkk a tontu xam nga maanaam kon ñoom lu ñu daan def rek jëmale ko ci camp présidentiel wala ci président Macky Sall dañ ma daan sóoraale. donc ba ma noppee si nga dañ commencé gis activiste yi te nopp bi wax naa la ko parce que topp nañ di continuer di yàq sama der di wax ne voilà su ma toppee lii du ma am dara président Macky Sall du ma wekk du ma faale du ma dénk ndomba tànk pendant ce temps ñoo xam ne maa ngi ñoo a maase ñu ngi leen di confier ay responsabilités et puis ma ciy teg sama bët donc loolu tamit bokkoon na ci li tax ma ma taxaw. Mm-hmm. ama ama ama ama Suzanne si say kàddu léegi dama dégg nga ne bi nga daan yëngatu di def yenn tontu yi daaw ñu gis activiste loolu foo ko teg. mais <laughs> mais c'est la réalité. non mais foo ko teg expliqué ñu. <laughs> nen waxante dëgg <laughs> yaa ngi Sénégal nga dëkk comme man yaa ngi gis que ne activiste yi biñ ko biñ commencé di fël di jóg mooy Amath Suzanne ba mu noppee mais nag. nan ma xaar maa ngi ñëw. non mais yow yàgg nga noppi parce que presque deuxième mandat ba léegi kenn gisu la. <laughs> waaw euh, daanaka sax man tuddewuma ko noppiwuma sax. Mhm. Euh, noppi éternel mais xëy na lu bëri laa wàññi woon. da nga de jël recul. voilà lu bëri laa wàññi woon par exemple defante bi xam nga fu gaa yi waxee ma tëb dal seen kaw et cetera xam nga bu ñu parce que activiste yi xam nga tey li ci graaw mooy boo nekkee ci ku jege yow lu la wax. bu la neexee saaga bu la neexee xaste mais gars yi duñ ko gis mais ñun ñu nekk ci pouvoir bi bu buñ ko defee rek ñu mamb ñu mamb ñu. est-ce que du yow amalgam boobu nga defoon nekk ci pouvoir bi teg sa bopp ku nekk ci ku jéggi. <laughs> waaw mais xam nga. parce que da nga nekkoon sur la défensive. trop mais xam nga tey man boo xoolee ci opposition laa nekkoon. ma nekk ci opposition ñoom par exemple li ñuy def man loolu laa daan def di attaquer di jóg di dal ci kaw gaay gaay mais xam nga loolu tey bokkul ak tey. posture boobu bokk ak ku jël ku yor nguur ku yor nguur da war a dal da nga war a apaiser ak yooyu parce que ku yor caq comme ñuy wax warul xeex ak ku yorul caq. comprendre nga donc loolu aussi bokk na ci mais man dama jàpp ne. Euh, euh, ñi nekk ci kuje gi di ñu di def leen neex aussi ñun tamit dañ leen ci war a fekk si. waaw parce que aussi suñu leen bàyyee ñoom ñuy wax rek wala ñuy def rek mais c'est la c'est la bataille de la communication c'est la bataille de l'opinion. donc c'est ça la vérité. mais actuellement am nañu ne président Macky Sall dafa wéet côté communication ñaari nit wala ñetti nit ñooy génn di wax. voilà gis nga loolu looloo ko waral sunu genre gi noppi parce que ñee ñooy taxaw di ñu attaqué ñun bu ñu waree bu ñu ñu tontoo. ñu ne ñu mais Amath si ñu leen di attaqué dañuy taxaw ci la personne de Ousmane Sonko te yi sonal na leen te gisul ñu kenn koo xamante ne tenir na ko tête. man de man gëm naa ne mën naa ko tenir tête. man gëm àndal activiste yëpp mën naa leen tenir tête mais dañ ma ci bàyyiwul. mais fooy jaar parce que bu ma ko defee. ñu dem jaxase maag kilifa bi wala ñu jaxase maag ñi ma àndal. mais wax ñu fooy jaar fooy jaar ba tenir leen tête xanaa toog rek di leen wax ay kàddu yoo xam ne tamit parfois dañuy jàpp ne da ngay xuloo ak ñoom. non non xam nga affaire bi aussi làmmiñ warul du lekk moromu mhm. ñoom dañuy te balaa ñoo wax aussi ñu wax ñun tamit wan wan li fi président Macky Sall def parce que le président Macky Sall aussi li mu def bëri na. te président Macky Sall aussi bëgg na ku ko défendre c'est ça aussi la vérité parce que bëgg na aussi ku fësal li li mu liggéey mais lépp lu mu def ci lu baax da ngay xool rek saa yu posé acte bu baax bu fool rek gars yi xoolal fexe nañ créer benn situation xoolal pour renverser la tendance xoolal bi mu soog am mandat bi mu neex ba dee ñu fal ko mais xoolal si lañ après taf taf ñu génnee affaire pétrole bi xoolal. bi corona bi amee xoolal mu woo ñëpp ñëpp ñëw toog waxtaan ñëpp ànd si mu ñu rafetlu ko bu ne xoolal gars yi commencé génne ne ceeb bi ceeb bu bon la ne waaw ni ñu joxee euh, ceeb bi eggagul ni ñu joxee ndàngam xoolal coow li ñu fi yëkkati yëpp ci affaire corona bi mais loolu yëpp pour xajamal li mu li muy def ci lu baax. trouvé nga transition bi ci corona bi la ñuy des tey jii la xale di dellu ci classe yi gannaaw la 3 bi ñu sumboon antuwul woon. tey ji ñu ñu ñu fas yéene delluwaat ci classe yi yow jàngalekat nga bokk ci réseau enseignant yaa topp ci Youssou Touré mm. ñu bëri nee nañ taf yëngal la rek mais xam nañ ne pare guñu woon pour dem ci école yi. waa loolu dinaa ci ñëw mais di massaw le président Macky Sall parce que ñu ngi annoncé que ne. Euh, dafa am ci jege ñaaleem koo mm. xam ne dafa am Covid bi. ñu testé ko mu positif mais yàlla def na moom ñu testé ko mu négatif mais terewul jël na quarantaine loolu aussi lu baax la maa ngi koy massaw bu baax di ko ñaanal. mu wér ak jàmm ak salaam en corona bi moom bu ko naree dal moom yàlla ma dal man waaw man loolu moom. ma ah. moom sañ naa ko ñaan. loolu moom président moom bu ko corona dal. mais est-ce que tamit amaat du du politique gu ak sëriñ bu ko naree dal na ma dal. waaw non moom moom warul ah? corona parce que moom ñëpp la fi nekkal xam nga ñu moom ñëpp la fi nekkal mais xam nga man say peut-être jàngalekat yi rek ñoo am. mais mais corona mais moom sénégalais. xamul président xamul keneen corona xamul président xamul keneen de. waaw loolu am na Euh, c'est vrai que corona xamul kenn mais aussi il faut que ñu préparer la population que ñu xam ne aussi vaccin bi am na le vaccin contre le corona ça existe. fu mu ne. non am na euh, lan moo tax les décideurs les états reculés c'est parce que toole bi mu am la au niveau des des africains ñu leen africains waruñu nekk ay cobayes te les africains sont un peu partout dans le monde mais corona le vaccin ça existe. ah bon ni sé bi amee ñu loo xam ne di ko faj. mais noonu la vaccin bi existé mais tey lan mooy faj corona du gis nga ni ñi di wér ñu ñu wér ñoo ëpp fuuf. non mais dafa traitement bu ñu leen defar mais mais bokkul loolu jotewul ak dara. ak vaccin ñi wér ñoo ëpp fuuf. d'accord na ñi ñi mais loolu traitement la loolu traitement la jotewul ngay wax nii. vaccin bi am na. fu mu ne ak ñan lañ vacciné bés bu africain yi bàyyee coow li ah boobaa af boobu les décideurs les états. yow si beneen am audace wala courage. ñëw proposé ko beneen beneen débat nga ñu ñëw ci affaire école yi. waaw école bi. Mhm. école bi euh, ñu ngi ñaan yàlla ñu ubbi si jàmm ubbi leen tey. ubbi nañ ko te yaakaar naa ne ubbite bi aussi sa s'est bien passé en tout cas gisaguma euh, yéen journalistes yi ngeen tàllal seen camera di wane ne fii lii manqué na euh, gel manqué na wala gant manqué na. loolu kay sorul Seydou Nourou Tall gi rek ñoom nee nañ du ñu tijji tey parce que dañoo am problème mu ndox. waaw waaw d'accord mhm. du jafe-jafe mënul ñàkk. c'est sûr que jafe-jafe mënu am mais li ci ëpp solo matukaay yëpp état bi jël na ko mais fu jafe-jafe am ñu rectifier jeex na loolu rek mais xam nga ne année bi mënul invalide mënul blanche c'est pas possible déjà li ñu jot a jàng rek am na solo bu doon examen kon mën dañ ko fi sax yemal mais est-ce que tax ak ak wérgu yaramu xale yi warul tax tamit ñu ñu ñu blanchal année bi rek ndax wérgu yaramu xale yi sàmm wérgu yaramu xale yi dem te nit ñaa ngi wéy di dee ndax coronavirus. waaw mais on vit avec le virus ñu ngi dem marché. te virus baa ngi fi ñu ngi dem jàkka ja te euh, virus baa ngi fi ñu ngi dem di dox yi suñu soxla man du sama kër laa jógee ñëw ba fii pour def émission. Mm-hmm. mais kon war leen mën a dem école en respectant les mesures barrières les mesures sanitaires donc ñun foo mënti nekk muy sa kër muy si biti da nga war a respecter les mesures sanitaires li du waa kër docteur wax nga respecté ko buñ ko defee rek jàmm mais mais toog rek corona bi duñu du ñu dem fenn loolu mu nekk looloo tax d'ailleurs population bi sax ñoo njëkk a fippu Euh, euh, kii euh, état d'urgence bi ñu wàññi ko bu ko yeneen mesures yi aussi président dellu si ginnaaw. Mm-hmm. parce que aussi le président est à l'écoute de son peuple. et c'est ça la vérité donc sinon nit ñi dañ doon dem ba dootuñu am lu ñu lekk te bu nit ñu amul lu ñu lekk fu ñu jëm mais ku nekk di nga song sa morom. wala di nga song ñi ñi yor nguur gi te loolu aussi musiba lay indi waaw gestion covid 19 bi la ñuy des ba tey gis nañu waa dem démb def benn sortie di ñaawlu doxalin yi nga xam ne noonu lañ géree covid bi ba buñ moytuwul sax dinañ demal benn grève boo xamante ne test yeeg yooyu dinañ ko gàllankoor boo certainement war nga ko jàngat naka nga gisee seen sortie bi ñoom waaw dégg naa leen ñuy wax c'est vrai que ñuy ŋàññi jafe-jafe comme ni ma ko waxee léegi mënul ñàkk mais je pense que bu ñu waxantee dëgg ñun euh, euh, ñun dëkk bu am doole Sénégal dañ daan toog di critiquer suñu plateau médical mais tey gis nga Covid bi ñëw li ñu wane dëkk yi ñu ëpp doole fuuf gis nga ni leen mba mbas mi terrassé. waaye na mu mel foofu tamit melu ko fii. waaw mais loolu la mais mais loolu la ñu ngi siy sant yàlla bu baax. mais aussi am na lu ñu def ak certainement ak ñaani yaa yaa aussi les euh, doole ji si président def alal ji mu jël yëpp consacré ko ci loolu non seulement sur le plan social dimbale. askan bi mais aussi sur le plan sanitaire yokk doole ministère de la de euh, santé aussi am na ci solo ñaani aussi man gëm naa ne ñaani aussi am na lu. ministère de la santé ministère de la santé tamit ñaañi nañ ko de. ministère de la santé ñaañi nañ ko waaw mooy li nga wax léegi rek. Mhm. Euh, jafe-jafe mënul ñàkk maa ngi. remercier aussi di jaajëfal aussi sunu ministre de la santé ak son frère Abdoulaye Diouf Sarr gàcce ngaalaama lu ne nelawul toogul lu ne mu ngi koy def ak ñi mu àndal ak le personnel de santé ñoom ñëpp maa ngi leen di féliciter di leen wax di leen dal dolli ñaax ñu gën a taxaw askan bi parce que métti na ndax déjà yow rek euh, di faj koo xam ne mën na la wàll à tout moment. mais fi ne tout le monde a la peur tout le monde est stressé. Mm-hmm. mais xoolal ñoom seen njaboot tey. man tey su ma su ma su ma damay faral xool rek su ma génnee di seeti par exemple sama benn xarit jabaram mës na di accoucher muy accoucher accoucher bu difficile ma wax sama jabar ne maa ngi dem hôpital mais sama jabar dafa ma xoolaat ne ma yow la wax ni ma ne ko hôpital laa jëm mu ne moom mais hôpital maanaam ñëpp a ngi daw hôpital yow ngay dem hôpital ma ne ko yëg naa ne jabaram dafa nekk en difficulté mais mu teg si woo ma téléphone su ma woowuloon sax xëy na mën naa bañ a dem mais ma yëg ko ba pare mu teg ci jël téléphone am woo ma donc sama devoir mooy ma dem seeti ko donc xoolal kon ñu waa kër nga xam ne chaque jour ñu ngi dem hôpital kon ñoom seen njaboot ci tiitaange rek euh, donc kon ñoom euh, comme enseignants yi tey ni ñu amee déggoo benn jàngalekat mu ne duma dem te pourtant jàngalekat yi mënoon nañ ko def mais bëgg seen réew fonk seen réew fonk seen liggéey moo tax ñu koy def. donc kon dañuy dañuy dañuy personnel de santé ak personnel. de l'éducation dañuy dañuy dem Koungheul ah. yow waa Koungheul nga. tout à fait est-ce que du ñàkk doole bi nga am Koungheul moo tax tamit ba léegi amaat gars fàtte ko parce que foofu tamit dafa mel ni sa doole des na fa. non mënu ma ne foofu ñàkk doole. Mhm. ndax euh, man ci ñi njëkk a jóg pour jàppale président Macky Sall laa bokk. Euh, déjà man bi may ànd ak moom boobu mu ngi PDS ma dem ànd mu créé parti ma dem ànd ak moom donc kon bi APR existé ci njëkk a taxaw ànd ak moom ci laa bokk te Koungheul waa Koungheul ñu ngi may dégg. Euh, Koungheul nag euh, tey su fekkee ne no euh, parce que si nomba tànk mën nañ ci natt nit sama frère bu ma bokkal benn baay te man mën naa ko wax si su sous sa permission il est même ministre de la république ci man man maa tax mu xamante ak président Macky Sall donc xamanteem ak président Macky Sall ci man la la ko yàlla dogale amul lu ma deful mu nekk intellectuel mu nekk am mu am base daan daan def ay action yu am solo Koungheul ma xam loolu ma fexe ba boole ko président Macky Sall mu ëppale taxawaay moo tax tey mu ëpp si seddu bi. waaw mu nekk maire Koungheul mais euh, conseil départemental ndax cër ci localité ñaar la. maire mairie wala conseil départemental. conseil départemental le premier vice-président. du conseil départemental de Koungheul. donc moom mu nekk maire man ma nekk président du conseil départemental loolu maa ngi moom dañ ci waxtaan. yow loolu doy na la. non déglu ma moom dañ ci waxtaan. mu bàyyiloo ma mais moom xam na ne man bëggoon na te defoon naa lu ne pour nekk jiite conseil départemental. mais mu nekk président conseil ma nekk président conseil départemental moom mu nekk maire Koungheul donc loolu dafay dafa du du du yomb du du xaw a rafet ci gis-gis looloo tax ma dellu ginnaaw mais moom moom ma fa ëpp doole et je le te it man moom laay jàppale. ndax ndax euh, su ma defoon leneen rek dañuy mu seytaane mën na dugg suñu diggante donc ñoo bokk benn camp ak le ministre Assane Diop. ak ñeneen ay euh, Socé Diop Dione ay Yaya Sow ñoom ñëpp ñun ñoo nekk benn di jàppale président Macky Sall Macky Sall lan lan lan ngay jeexalee muy am ay ndam. Amath Suzanne lan ngay jeexalee euh, presque émission bi. waaw li may li may jeexalee rek mooy di ñaanal président Macky Sall encore une fois. di ko xam euh, naa war na jot appel du pied yi de. waaw <laughs> war na jot appel du pied. mandat bi mu nekk aussi. Uh-huh. ak corona bi ñu nekk mu. jeex Sénégal jeex ci adduna bi yëpp. Mhm. ba pare it mandat bi mu nekk nii mu jeexal ko ci jàmm nga xam ne 2024 bu bëggaat bu bu bëggee dem sax waa Sénégal ñooy jàpp ci tànkam. ne ko da nga d'accord ci troisième mandat ne ko bul dem. da nga d'accord ci man man tuddee ma ko troisième mandat. Mhm. man li ma li ma gëm mooy euh, constitution bu bees bi président Macky Sall benn mandat la ci am. kon yow nga jàpp ne 2024 war na présenter constitution bu bees bi daf ne kenn mënul am lu weesu ñaari mandat donc ci biir constitution bu bees bii ñu voté président Macky Sall benn mandat la ci am léegi nag c'est le droit qui dira si le président à le droit de postuler un autre mandat ou n'a pas le droit de postuler un autre mandat. léegi pour pour être clair 2024 da nga jàpp ne war na mën a déposer wala waru mën a déposer. man ci li ci ci li ma xam. ci li ma gis parce que je suis pas comme ni ma waxee sànq ci affaire vaccin bi du ma un agent de la santé mais aussi du ma un agent du droit mais jàngalekat la te jàngalekat moo jàngale moo jàngal euh, juge bi. moo jàngalekat moo jàngal médecin bi. donc kon am naa sama xel te jàng naa mais li ma gis li ma jàpp mooy Macky Sall Euh, le président Macky Sall ci constitution bu bees bii ñu voté 2014 benn mandat la ci am. ba léegi tonton yow ma de ndax 2024 te yoon war na ko mën a may mu amaat ci beneen mandat. ndax 2024 war na mën a samp ndëndam loolu mooy sama question. Euh, li ma wax kay leer na. day bokkaat kon. li ma wax. Mhm. mooy man li ma jàpp mooy président Macky Sall 2024 war na mën a sampaat ndëndam su sampul ndëndam rek mën na droit mën na ko jox droit mu samp ndëndam. droit mën na ko jox droit mu samp euh, mu euh, mu samp ndëndam mu bañ a samp ndëndam wut beneen candidat donc dans tous les cas le président Macky Sall war na mën a sampaat ndëndam bilan am bi mu am premier mandat ba mu tax sénégalais yi wóolu ko dénkaat ko donc liggéey mu liggéeyaat ci mandat bi ba nga xam ne sénégalais yi aussi dootuñ bëgg mu dem. bu ko defee mu amaat beneen mandat. Mhm. nekkaat fii di au service des sénégalais. Mhm. su fekkee nag. jàpp na ne moom dafa war a dem nopp lu mais boobaa aussi ñu mu ñu teel ko décidé pour am un autre boo xam ne aussi dina mën a gañe élection yi mais man gëm naa ne le président Macky Sall bu nekkee candidat bu 2024 dina gagné élection yi bu fekkee aussi dafa bàyyi keneen si ñun mu am euh, mu mu mu jiite euh, xeex bi kooku aussi dina gagné. loolu sa gis-gis la incha allah dina yàlla li si kanam raw luy gët. dinañ xam su wànnati di mujjee ak ay gëtam. ci yàlla yóbbu ak jàmm jërëjëf Amath Suzanne Camara yow yaay adjoint coordonnateur réseau euh, des enseignants de l'APR ñu lay jaajëfal bu baax a baax ci invitation bi ñu nangul fii ci waa Sunugal 24 ñiy jaajëfal aussi sunu caméraman bi nekkoon ci ginnaaw di Diaw Fara Diaw ñi ngi lay jaajëfal baax a baax ak képp koo xamante ne internaute nga di suivre suñu programme ñun waa Sunugal 24 jaa ngeen jëf ba beneen yoon incha allah.